ñu ngi xaar li les audits parce que le gouvernement bi nga xam ne moom moo fi nekk le régime en ba mu fi ñëwee def na beaucoup d'audits def na beaucoup de contrôle gis nañu les gis mais on attend de voir la suite et pense que ne vraiment war nañu changer de paradigme cest bu ñu defee ay rapport ñu sanctionner sévèrement loolu la sénégalais aussi di xaar. gis nga changement de paradigme boobu dafa am solo mooy sax sunu ñun su ñun doxalin. Mm-hmm. rapport yi rapport yàgg na am. yàgg na fee am boo demee en ligne <laughs> rapport yi moom. Mm-hmm. yàgg nañ fay ne muy Cour des comptes di OFNAC sax ce ne sont pas des cours de contrôle. Mm-hmm, mm-hmm. mais war loo xamante ne au delà des actes délictuels am na actes yoo xamante ne wax dëgg yàlla boo ko gisee da ngay xam ni. lii ni ñu koy doxalee jaaduwul. ndax loo xamante ne yaa ngi ciy investir depuis dix ans amoo ci benn résultat. wala loo xamante ne yaa def xaalis boobu ba léegi ñu ngi koy dégg amoo ci benn résultat. loolu bu fekkee ni sax waxuñu ni sàcc am na ci wala détournement am na ci. Mm-hmm. mais loolu xam nañ ni ni ñu koy doxalee kon demeewul noonu. doxalin bi kon tey fi ñu war a toll mooy. Mm-hmm. ñun citoyen yi nag. Mm-hmm. am na ñaar yoo xamante ne moo ñu war. comme yan bi jiitu mooy. Euh, comportement yooyu. ñuy dingan yi nga xam ne dañ koy duut baaraam naan lii baaxul. ñu fexe ba ñun ñu bañ ko def. ndax corruption bu amee corrupteur am na. du dëgg. Euh, nit bu jëlee lu mu moomul indi ko ci yow nga xam ni moomu ko nga jël ko di ko jëfandikoo ba pare wëlbatiku naan sàcc baaxul ak fen baaxul <laughs> du dëgg wala nga xool koo xam ni mm-hmm. euh, bëggul yëngu bëggul bouger bëggul activé wu mais ba pare bëgg di jëriñu xam nga loolu mënul nekk loolu c'est aussi une question de mentalité question de mentalité beneen bi nag mooy mm-hmm. euh, ni ko euh, premier ministre doon waxee kenn warul féliciter nit parce qu'il a bien fait son travail. son travail ndax bu ñu la jëlee bàyyi Sénégalais yëpp. Mhm. tabb la mhm. teg la fenn. Mhm. mais boo defee sa liggéey. ah mais alhamdulilah waaw góore waaw góore on doit être beaucoup plus exigeant. avec nos dafa yokk dafa yokk góor aussi waaw góore nag dafay yokk góor ça c'est important. donc nga féliciter nit ndax daf na li mu war def am na solo. mais Sénégal tamit tolloon nañu foo xamante buñ ne. gis nga nguur lañu war a bàyyi. bu ñu bu ñu waaw le le le concept nguur. Mhm. moom lañ war a bàyyi. Mhm. Euh, affaire bi dénkaane la. Mhm. da ngay def li nga war a def bopp rek nga dem sa borom. nga dem seen chance.